xamoo lu xew fii la sax si gël fii en face sa def si gël tàppe chez Idrissa Ndoye Adja Ramatulaay Diagne sunu yaay diiru bi sunu yaay deewee ba tey depuis 2011 mu toog 3 ans de mariage daal di takk soxna boo xam ne il est né de 74 moom mu am 81 ans comme 82 ans depuis lors ñu ngi muñ soxna si ñëw na fi xañ nañu lekk xañ nañu naan. lépp lu mu def lu ñu def mu ne du fii lii ngeen di def ñu accepté lu mu wax ñu nangu ndax suñu kilifa bañuñu si dara ndax suñu papa suñu papa yàgg nañoo defal ñaari junni la ñu daan jox dépense diiru bu fi soxna si dikkee bu duggee ba tey dépense joxatuñu ko dafa benn njël bi. jël waañ bi jël waañ bi. teg waañ bi fële ñun ñuy togg ci ëtt bi suñu ndab yi ne ci ëtt bi ñuy toggee ci ëtt bi jël suñu bagage lu mu def ñu ne gongo ba léegi soxna si may ñu jàmm ber ndugg mi du ñu jox ndugg ñaari carotte ñaari pombiteer ñaari soble loo xam ne xamuñu ko dem na si ba sama papa ne kon affaire bi léegi sama soxna kese lay jox dépense joxatuñu dépense ñuy dundal suñu bopp avec l'aide de nos loolu moo fi nekk bonam nag jàppanteeg sama sœur mu ñëw dugg si indi si coow lu dul jeex wax sama rakk lu ko neex ne ko dootoo fi jar lu nekk mu traité ko ko ba mu neex ko mu jékki-jékki ñu defee ne wax ji jeex na ñu demee euh, démba yeer ñuy ñuy le lendemain si fee bi ñuy reer yakkal suñu papa reer fëgg bunt bi jox ko reer bi moom madamam ci boppam moo teg moo ne sama doom tegal reer bi fële mu jël reer bi teg ko fële bi mu tegee reer bi ba pare mu génn mu ne mu ne sama doom bi merci moom ndaw si ne ko jërëjëf ba pare daal di génn sama doom génn mu daal di wëlbatiku uh, ubbi bunt bi yendu di xool ba xam ndax sama petite sœur bi mu di taxaw si reerukaay bi wala déet joto ñoo reeragum sax nekkate boobu baxal na ndoxam ba mu tàng def si dowliñ na ko sëpp si kawam soode na ko yaramam bi yëpp lakk na kanamam desul dara desul sama doom lakk na sama beneen petite sœur lakk na ñetti nit la lakk soode na leen lii daal man mënuma xam fee bi lu mu doon kii daal capable na capable na ah capable na te sama papa tam moom la àndal ah ba léegi sii moom la àndal wal ba tikkoogul ba léegi ne doomam naka nga def fajul xoolul voilà xaw ma lu mu def na policiers yi taxaw di ko xaar mun a copp ci ci néeg bi xaw ma dafa jël paaka dagg loxo bi ba pare génn naan dañ ko fekk foofu jam c'est pas vrai c'est pas vrai sama soor dugg fa xoolu ko toute la ne nekku fi woon dafa demoon léttu ji ni mu ñëwee lañ ko woo reer muy génn du reer moom daf ko nenn lam ko waxoon la ko def dafa ne woon